pexe ya kange inom nom toon dalwa men me na kanje goro ya dengo joko jalla ko fogole ino simna nun me na merna simnitega nun na waktu feke no kirin ne ko olo hay kam sin gandume hay koy i jega o ɗaya pa ingi janga ir nda in andona ye o nanga ñaaƴa bota jeg ni jamano rek o jeganga xa tikan ko mofa o ndeƴin bo anda datale andona te o xota a o wago jof no andona maga o xota kirwa manun hiroɓe annduɗa den ndefo e yayfo faap nda hiroɓe annduɗa den ndefu téléspectateur ɓe annduɗa den no mbuɗa safina tv na kam sate fe fo e ndefna gila sa mo kina fodna fod rek ino giroran ne andona naga o maada hirortel donte a toka xale xaye a lalta a toka no maad maad wa faak i jegoɗa ya paax a paax sasune ne nu yonta fa in we matna we goɗna leyan ma nuun jam fa nuun tem xeɗana nuun jama nene xeɗan roogo yaalo xaye a fi in ako ɓombido a fi'in we andoona den ndefu waajur ke we ñakna waajur den xeɗando koy alo xaye a xareeɗan ajana kene suuranga rek o fog ole i ndokka no ke andoona ten refu jeetaay le xaye na Safina TV xaye koy i mbaxtaanit ka a jofna may war donte may sawali ngelwaar faaga ten i mbaxtaanit ka no ke ando tende du chosan fa ada fa fa ata taxa itam ay mbi mbi'kan a ɗeg a baxtani ten o maad oxa andoona yee a doyda waar lool um aret ret ka yemna o ɓiy seereer ta salmon o njongoloor salmon na pula ka tara ha raxa goorgendum wa nu yande ko du giman a kima solo gigi mayu angiman. Han xan i tamit nu chama no kenangara ka xotna tamit no a ñoxale andona kata jeet nder no mada sinig faxarana maba jaxu kaga no camano ken na ngar a felangaro nda jetay le xaye in way ɓakan kan no xe andona ten refu a may sawali ngelwar a jega nu we andona ka ndef yaal xa an comme ima de to ndef xa teɓandong ndaag nana den den no ka i mata den te njeg ka axnayo in ngir i mbaago lamo kaaga te ref cosaan fa andoona ñufkateer bo faw i mbago ndawin mbetandin we andona den ndefu xa ɓiyin in kene taxu bo we andona den na mbetandoxa cosaan fa aada i matanga den to waaga de o tubaab o historien xan ta ndef andona tamit a aqatina in no ka xotna na cosaan fa faak to o ɗeetangaan moƴo jakole kam saate fe fop we mbeca ke andona ten refu cosaan nene bo a taxa ino njema ke i mbaag na ngiro mbaago ngota ke andona ten refu cosaan nene mbaago mbaxtaana teen a leye may sa wali ngelwaar i mbaxtaanit ka xaye te ref o maad oxa andoona yee o maad cosaan o yaam a jega no seereer we wa andoona yee we laya seereer we we inora na saate fa na xooyel Égypte a jeg nu we andoona historien a ndefu waaga den na qoox den te layo seereer we we inora no saax la Guinée Bissau tago paref atagin noe andona kata mako in o serer kata lawnge nang mata omak, mak to fanyo makin mba odahan kana omak, ngirta dahong no andum Aje jeg we ye o serer o refanga ɓiino serer nangi jikana sumbu ngirta surnawo fo nafalay kaga paref andona den ndefu mak, cosan fa ada fe andona ye ka tam to gun fa fe defak amera akatina in no ñohro laga nda toknu ga itam mbodde ma a nu jeje ke yo ka laye nangi jikana o maak guro ta garfa wo na falay kene par xadelem xa andona nda ko itam aref ref tiga andona ye tig cegu solo yo a ha xa andona ye ten no xoxum o ka tangeran o tangeran ka o fa akos malebu ma ndigil naga botata koy ne laytan mo xator i mbaxtanit ka a may sawali ngelwar nu nana jejek we nata ngimtuna a kima laga a kima cegu solo may sa may sawali ngelwar may sa ye ga bo inoru ye a gatit nu saxle mbisel a jeg wa layna ye may sa may sa ngelwar may sa ga bo inoru ye yarox saxle mbisel nda xuta waagna waag o rek may sa waly o maad o maak a ree'u maad oxa andoona yee o ndaa o maad tamit o saɗ'u ndigil to bugɗee we andoona den ndefu dag wala boog ɓasil ne ndefeegna took a cinjum a ndef wa yitam a refa ka andoona a betandax o yaam no xe andoona ka i ndagnitno ten o and a jega nata layna in ye may sa waali maad waaga ka ta ɓogooxeege ka xotna a qam ɓetu ɗik na bes jumalin kaaga cedo ka andu bo fa ndiik o retangan we andoona den nan mbi'a mbiɗel ke fa paƴa ke den na qoox den a nanga cooɗango teex ka ta layonge ɓogweed na arxames mba tening nda a jega teen jaak wa andoona no maad waaga jumali nga bogo xege ke annata ndefa xamba kaga nexa yal xa anda xelayna bo ataxa may sa wali ngel no xaga na bes jumaling ya ando naye o xey bogo xa a soɓa kena layelo o maadoxu ando naye rek ka o maadoxa jega ke ando naye ten refu pañof o ɗetangan xaye ten refu par exemple refanga o maad xano jego opposant ndakoy may sawali ngel waro ten no xooxum xaaga andoona o maad reedu no saax la na Guinée Bissau yatata gatidka no saax le Sénégal a Mbisel oxa layeegeena suku bambang reeduna o pañum o maak no saax laaga na gaabo a inooxɗu fu ke andoona ten refu gangoorum ngir a war o dal took no ten refu may sawali ngel waar kontor ɗu maatum no camano kaga ndeya andona ten oxene andona ten refu may sa wali ngelwar a mofa bo na bes jumaling faga ta ɓogoxa te lokit ke andona ten refu xano mboqeno ten ku andona ka xot no galaj ke andona ka ref kana aran a dal fo lokina ɓogoxa nda cigeno xene suku bambango xeege yaal xa anda xe laynayo den na qoox den a layaye kata ɓeeɗoxo ndang yaam o terete may sa waali camano kaaga a garolokit ke andoona ten refu teex kaano ten fop a ƴuf fo ten ye andoona yee may sa waali ngelwaar a ɓogooxa ba a kor joojo ma joojo seereer ligum ta gara ɗeet me andoona yee maaga ta lokɗu ke andoona ten refu xa nombo kaaga may sa waali ngelwaar dal fo pakka cu junga kaa a pakka junjung a pakka junjung a pakka junjung sahla ngetidma te hoye yeel yeel jaaɓe te yeel yeel jaaɓe ta ande jombite fa jega may wali fi naga fokatir dagwa ala dene o cigeno xena suku bambang retna men ndabeno Ya fof ko ando naten nde galaj kana mi fop to koy anda e retna foten hey ma ma tiga gado war alla ye na gata def na dagwa na may sa wali anda bote waxa anda bote waxa ndam na piska ndam na piska nar kor ka fop yata na banda te waxa ta subto xa saqul saqul te pala la calla nder jimbil jimbil jimbil jimbil jimbil jimbil jimbil ba xa moƴna den men teng kam o jocola mhm. ta mbiltooxa ngarid mena may sa waali a layo may sa waali kelwaaroxe njombitee fa jega de ndaa i ndeefa a ndew saade yaa i ndetna bo fo ndaawin saqul yàlla koy may sa ngel waar ne hey oxu ref na tag may sa pat i ngaday oqu de yaam koy a layo ƴuf bo dat no ngoora ta fogu kaga paalo xa layo ye daw bo raw reer ci ngoor ala bokk mm-hmm. o seer a layonge jambar ju fe kana waɗik doole nda doole faga ndax may sa walingel wara waɗik ɗan ndax waɗik ɗeran nda ke xoolna dal nuke bibin we mbinna ke be weta ndax we mbetanduna a ley may sa walingel war ten no xoxum ka ta xumin ɗu ke andona ten refu cogol kano ten a yoon fu dag we ten dal fo a mbaɗiɗo saax a inoora kat ma andona ten refu kiine bisaawo kono fogole serer nei fe, ndafiye coda nun kilip nom to xido fato nam serer wa i mbokator mbiya leng mbaño ngajor to yon fu cosanni usu njol fay a fiyangan rek imbago codo nun kilip nom to xido nu cause miedo am ñaan le fa foya Jika mo pa, paax yung tatay sa sune, nga na ya ando naye buda himalene na senjol jege daye paax paax ne lay tan hator le waktan ya le ano natin, inje tay ta aref may sawali Nunanan, yalay ya lay manu ne ya tanga daye andal phone ndoxo du kyan natin defu ato paka. wala ko itan may sawali le, xuref na o may sawali rek ino kife yata jota jota ko yala e banna o ke annata ndefu juhamfe o sirala yaw maako le aje gawe ne yo ke garna fanduna le ala e na ando tan na layel marlo marsulu marfafa ko faka mandu le fop ke kene ando tan na hoel basul basar jon wa nyodor samba jambunde chala e eh, kene fop o oh, tangam o oh, ando tan defu may sawali sate yo oh, sate alefama a jega ke ta wasnama nda koy comme xaple ciit kiran ka i cofka no kene mbool ke andona ten refu caate kene andona ten na waasu comme ne limantanma nuun nda ye andona a gara bo me andona ten refu na tefes se a jega ndaxar maak ne maaf na maaga a sixin suq ta layel ndun ndahar naga koy a jega we laynao te gartu fogona ndunale a ndunale a ndunale yam may sawali ngel wara layɗay dene meke um gutano madram xana layela ndunale ke ndunale a soɓa koy yata ndetna ndet bo ande a njota yama layeya wiin wa yoɗna fo may sawali nu camano kaga a nguɓɗa wiin teɓet na hik a jega wa layne a nguɓɗa wiin teɓet ɓetuf ɗik o singganuma laya teɓe ɓetata dak a jega we sax way leyna yo na no mbe weta ndax we ka fadna wiin junne andeedu fo ka reefna e eh, supnayonga jotna den a jotna den a jotna den bo roga yarida a jega te waxa sugenna maaga yeta ndawuna kata la denna e eh, may sa walide a refa meke fu dak we den nda koy e ndaxar na denunga o teno maxun ba bo sup ne a jotna den kaltama talay la andunale yam dundanga mai sawali ba duna naga itam ala yo tambati nan sax ci sanle andona xaye waga temo kam sate fe taraf jof yor arrondissement a jega nu rewe andona ten mai sawali ngel wara yo du o xa andona ka sax du na cafala e o tewo xaga maga na sate fa na xoyel jof nu camano kaga maga a yoku a wad ni ba a ma a doloxma ya na ma a jega koy nu jaku ya andona teta axu na te fen na xoyel jofiyoor bo a taxa a jega o kigimoxa and na o lamitnangan xaye te refa mama koli demu xana jeg gata leyonga ten o ten xoxomo xaaga refna may sa walingel wa yen na ye koy a gatida na saax le na xooyel a mbisel a mbisel ka jeg ka garna fo ten comme elema comme xaple citkiran ne mbag na mbi ten refu jaf la xan ya i ngar no ke te ci kene bo dafa fadidna am bisel nda dal o la yaay ne ta anona te tok goddu da layela e eh, maga xottu a fisa na fisa ta ha ñaamoxa ha bo ta da lay la saax maak am bisel may sa wali dal fo gen maga te no ngel ya ta gen na may itam a laye ya o lega mo fegu be fo lay ka mo fereka dam jamburum aje ko xate waxa na no pexey we e ya go wa ga mo no ramay sawali misa rewa mboka tora ne hey e da may sawali ngel war ya ta ambisel bo fandi laye fo lay aje ga sax we e na yo e maga simangol jona hottu yam kata mo fe mi tangata lay may sawali ngel war xaya mo fa jon jon may sawali ngel war o tewo ayatal faknangagum alay ga mo lay no roxe anu na to defu amay sawali ngel wa rew gen mu dumba rewa eh, andona fok tu ala dene hey o waxe nda may sawagi no lay no re nata fina ta hot ke andona anu ten defa akacata daka na andona ten nando nel ya bugo na jaw ke ta anu defu ci wax o serel la eh, a poxotan dawa tena dak dal fo don na xudo xola a bin akap nanga koy atanga ba umbare aka lerale le do aba xof mu ke amata ndefu kat nan ya fina naga afina ah, fin bu acha fadak may sa wali ngel wara lay ne eh cho aka chake dakan defa wadi dat kander korje me yasin lamba ho o wala ne eh maysa bugdama bugola e fami rek Iya, anu na gato ambisal bo fandi lay rofolen kam bu bugdo walay fami may sa det tigaga tar ka andona afel daran trop yamma de tay sa te fa andona teta inoru gabo na kine bisawo oh. agata agati ibnu amme andona tan dafa senegal sa te fa ka ote woya anunma ambisal lay tamit ote woya ma may sa walingel waradal fo lay mehe gadaya de adal fo gar me andona maga ta holo al makke andona ta dafa salmala bota sadik ba kon a jot bo mana awol ma ya fada qado ten ar bo mana al makke andona ta defu gidina so e ka gadaya na bay sa wali ngel warta no aga ya ka gadaya sere wan def to kum asoba alay day dene khuwa ga khamalam rek roko nga ba fada xek tambol fo rek andiye wonno o fo refka o lames o ɗisanga a salmale ta ta fuuro rek andi ye wo refka o lames nda tamit o garanga roko ke andona ten refu xa ñame ɗaxtanda won wona refka o lames maysa walidal fo gaddaay de o xa reta sereer ka ndeef tookum maysa xa keke maysa xa keke maysa wis dooxa den o garanga o xana rees fa tookum a loola dama took maysa wali maysa wali wis dooxa den tayenayo maysa ka jota jota jota jota ba am men teng kamo maagole bo ndik Luki alnate ni betta mai may sawali jege amboy Mai sawali melwa upan fen tamel te kamu magole mbo amagola ga oga aga tende fo boy sawali ya kambira na ga sere wandal fo jufa ngarido o na asal mala wa kinodis o na no gidina wa kinodis o huro ko na kanya da katan gupong mbit ndaw keran nda koy fogole sere minen ɓe gitta ɓe andona waxtan le ya may sa wali ngel warno ada ye oxe andona to bi salubiram jaaxe tan lay sal mon fay jongoloro o ten no ref oxe andona war no lam kon koy yaago fogole ka i e coɗkan no xet bo ginle na gara ya. a felanga rogo yal pexeya njeggange inom to jafakani dalwa men mena kanje koroya dengo